إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد alladi ballaga alrisala wa adda al amaana wa kashafa al gumma wa nasaxa al umma xatta tarakana ala mahajjatin bayda layliha ka nahaariha laa yaziigu anha illa haalik wa salla allahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa saxbihi ajmain mbokk yi daarul birri tv mi ngi dellusiwaat ak yéen ci émission yi muy def muy baytul muslim nekk këru jullit émission bee ñu génnee ñu ngi nekkoon ci azaka muudu koor ak àttey boroom xam-xam yi ci aju kon kay xanaa dañoo war a ñëw rekk wax ci waajal kori waajal kori mooy jaamu yàlla bi ñu duggoon mu rëy lool nekk weeru alquran nekk weeru yërmande nekk weeru naafila nekk weeru mucc ci bàkkaar weer woowu mooy dem kon jullit bu nekk daf ko waroon a jàppee ni yërmande moo fiy jóge kon lan mooy def ci ñun ak lan lañu tiire ci weeru koor gi maanaam yan enseignement lañ ciy tiire su ko defee ci lañuy ñuy comprendre ndax koor gi jëriñ nañu walla jëriñuñu ndax xam ngeen ni koor taxawaayam ak jubluwaayam mooy laallakum tattaquun ñu ne waaw ndax ci biir koor gi boo dee góor ragal naa ci yàlla na mu waree bu dee jigéen ragal naa ci yàlla na mu waree nga laaj ko sa bopp ndax defoo fi luy bàkkaar ndax defoo fi benn ñaawteef ndax defoo fi lu la yàlla tere ndax waxoo ci koor gi lu la yàlla tere ndax lekkoo fi lu xaraam ndax naanoo fi lu xaram ndax jëwuloo fi benn doomu aadama su fekkee ni yooyu yépp tontu bi mooy defoo ci benn kon nag sañ ngaa yaakaar yal yàlla defar ñu yërmande su fekkee def nga ci benn nga gën a jubluwaat ci defarwaat ndax fukki fan yi doon nga ko naafila mu des nag nga jublu ci jëm ci kori mbokk yi préparation kori ñun ni ñu ko réyalee yeneen xeet yi melul noonu ci ñoom dañoo jàpp rek ni kori julli la kon nit ki war na koo préparer ci sol yére yu rafet soo ko amee yu set bees soo ko amee loolu boo solee sa yére yu rafet sangu nga xëy dem ca julleekaay ba ndax imaam Maalik génne na ci Muwatta jëlee ci Naafi' mu ne ibnu umar radiallahu anhuma dafa daan sangu zuuru kori maanaam sangu bu sangoo balaa xëy ngir mën a dem ca jàkka ja kon mbokk yi nu yëg ni kori sunnaal nañu ci nit ki génn jëm ca julleekaay ba loolu nag góor ak jigéen ñoo ci bokk ñun sunuy jigéen ñu bari dañuy fàtte yërmande bi tax kori jóg bu ñu nee suba la kori ca guddi ya la jigéen ñi tàmbalee nekk ci uti ganaar ñii di suqi ñii di defar ñii di saaf loolu baax na waaye nag bu julli jotee nga bàyyi ko fa yow jigéen ji dem julli ji ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon génnloo góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi même jigéen ñi indisposé da leen di wax ñu génn ñooñu bu ñu génnee du ñu dem ci jàkka ja ndax yërmande yàlla day wàcc ci bëccëg boobu kon jigéen ñi maa ngi leen di fàttali jànq ak jeeg ak mag ak màgget ak ñépp mën nañoo dem génn julli ji ndaxit bokk na ci génn googu dana wane taaru islaam jigéen mel na mu war a mel bu fekkee nag dangay xëy di dem ci julli ga te muy julli kori sopp nañ nga lekk ñetti tàndarma walla juróom wala lu ko ëpp luy wane ni wooruloo xëy boo seetloo ñu bari ci nit ñi bu ñu xëyee korite lekkuñu dañuy mel ni ñu woor dañ koy jàppaale loolu mun naa nekk sax fàtte waaye kon boo xëyee boo amee tàndarma lekkal lu tool soo ko amul naanal ndox soo ko amul utal loo lekk mu taxaw taxawaayu ni yow kat wooruloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci xadiisu buxaari boo xamante ni anas ibnu malik moom moo nettali mu ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam laa yaxdu yowma alfitre xata yakula tamaraat wa yakuluhunna witra yonent bi du xëy ci kori ngir dem di julli ji lu dul mu lekk ay tàndarma yu tóol beneen bi bokk na ci kiy dem muy kàbbar ci yoon wi di màggal yàlla di yëkkati baatam buy génn këram ngir jëm ca julleekaay ba abdullah ibn umar radiallahu anhu nee na na rasulallahi salallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallama kaana yaxruju fi liidayni rafian sawtahu bi tahlil wa takbir nee yonent bi da daan génn ci bisub kori jëm ca jullikaay bi di yëkkati baatam kon loolu sopp nañ ko bëgg nañ nit ki di ko def kon loolu nit ki na koy bàyyi xel kon mbokk yi kàddu yooyu mooy allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar walillahi alhamd loolu nit ki di ko wax walla bu mënee subhaanallah walhamdulillah walla siixa bu mu mën mu di ko def su mënul bële mbokk yi ñu xam ni war nañoo yeete ci gis ni ñun ñépp war nañuy tudd yàlla mu nekk loo xam ne dinañu dimbale sopp nañ kiy dem julli ji mu dox moo gën ci moom ndax dox bi am na lu muy wane moo tax ali radiallahu anhu nee na min sunna an yaxruja ila al iidi maashiya nee na bokk na ci sunna nit ki jëm ca biir julleekaay ba dox ak tànkam bañ a jël oto walla mu bañ a war dara bu fekkee ne bërëb bi sorewul ba jéggi dayo bu soree ba jéggi dayo nag su boobaa bu jëlee dara war ko dara nekku ci sopp nañ julli gi ñu def ko ci bëccëg gi bu nu xëyee ci yoor yoor bi bu jant bi yëkkatikoo ñu julli ko julli googu nag amul nodd amul liqaam ñaari rakka la rakka bu njëkk bi boroom day kàbbar juróom ñaari yoon bu ñaareel bi mu kàbbar juróom benn yoon boole ko kàbbaru jógaale bi mbokk yi bokk na ci kori ñu bégloo ci suñu bopp bégloo suñu njaboot bégloo soxna yi waaye bégloo dëkkandoo yi ñun ñépp ñu xam ni bis la boo xam ni war nañ cee yéenente jàmm ñaanalante ci jàmm buñ ci mënee ndokkelante ñu def ko waaye mbokk yi maa ngi ubbi bunt bu ndaw di fàttali sam bopp di fàttali nit ñi ne kori kenn du ko waajalee concert jullit war naa moytu yi xew ñaaw na weeru koor ñépp sellal di tudd yàlla di wane bëgg yonent bi léegi semaine bi nga tàmbalee dégg DJ yi melomaan yi animateur animatrice yi ñuy tàmbale di publicité ay concert diw grand théâtre diw dana toj fii dana toj faa loolu li muy tekki mooy sa koor yépp tabaxoon nga ko ba mu baax waaye jël nga màrt dóor ko ci weeru koor ni mu amee yërmande yow musicien bi defoo ci dara lu dul feetu jullit ñi nga woo leen kaay leen ñu daje ñu tëgg ñu fecc ñu fo yow taasukat bi noonu yow fokat bi noonu est-ce que sa xel xalaat nga ni lii nga def ndax baax na walla déet loolu nañu liggéey ci conscience yi ñu xalaat musicien bi xalaat ci tëggkat bi xalaat ci yow jigéen jiy dem di fecc xalaat ci yow góor bii dem di noo si xalaat ci ndax fii nga toll ak lee nga jeexal lan mooy jubluwaay bi danga nga wooroon pour yàlla yërëm la bu dee jigéen danga nga bàyyi woon sol lu bon danga sellaloon sol yére yu dal di julli di muuru mel népp nag ba ci kori nga toj lépp mbokk yi yonent bi nee na li gën ci mbir yi mooy la ci mujj kon kenn warul wori di wooree ay fecc ki tëgg fecc ki tëgg daganul ci koor daganul ci lu dul tëgg jullit ñi nañu moytu lu mel noonu wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ida ma qala li rabbi ama stahyayta taasini وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتي يأتيني